mu ne walaw anna aynan saadat kon la tawakkafat saxaa'ibuha biddam'i nee na kon ay niiri ranqooñ lay lay dotti nee na bu fekkoon ne suñ bët yi bokk na ci alxuraan yi ñuy jàng ak bët jël na ci wàlla nee na kon ranqooñ yi day génn ba mel lay waame waaye lan moo tax bët mënta génn bët lu ko bekkooral mu ne xol yu wow yi walakinaha an qaswatil qalbi qastuha fa waylul lil qaasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dalalin mubin ñi nga xam ne seen xol dafa wow ci tudd yàlla bu ñuy dégg alquran wala ñuy dégg xadisu yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu dégg ji waxi keneen léeg-léeg moo leen di gën a ñor moo leen di gën a intéressé moo tax borom bi ne kon ndax jotul nag an taxsa qulubuhum li zikrillahi wa ma nazala min al mu ne wala yakunu kalladina utul kitaaba min qablu fa taala alayhim al amad fa xasat qulubuhum mu ne bu ñu nekk ñi gëm yàlla nañu wattoo nekk mel na ñu leen fi jiitu woon ñi leen fi jiitu woon ca seen téere ya téere ya dafa yàgg ci ñoom ba mujj seeni xol wow amatul ci ñoom benn taafir parce que ñu bare bare booy jàng alxuraan loo xam ne xam nañ ko ah kooku daal la mu fa wax man saar yu gàtt yi wala yi ma fa yi ma fa wax yëpp xam naa ko mel daal jamono bu ne dañ laa war a wax loo xamul déedéet li nga xamoon démb na mu la jariñe woon démb noonu la lay jariñe wat tey mi ngi mel ne tay ceeb biñ la tegal tey kay xam nga ko ah te lekkoon nga ko démb itam waaw ah, lu tax doon ne lii buñ ma ko kenn tegal buñ bëggoon tey ñoom woo mës lañ lay tegal kon bootul da nga doog a lekk ak ndox mi ngay naan ndox mu ñuul mi ngay naan kay yàgg nga ko naan xam nga ko waaye saa boo ko naanee mu jariñ la lu bokkul ak lala moom démb ma jariñoon beneen jariñ bu bees la la jariñat alquran itam noonu la alquran noonu la te borom bi ne wa ida tuliyat alayhim fu ñu jànge aaya bi rek daf lay yokk ngëm borom bi ne wa mimman hadayna wajtabayna ida tutla alayhim ayatu rahman xarru sujjadan wa bukkiya nee na ñi nga xam ne jubal naa leen tànn leen foo jànge ci ñoom alquran rek nee na dañuy rot su jóot di jooy kon yooyu yëpp taasur la ci alquran sab xol am xusoo yëg ak ragal yàlla mu feeñ ci saw yaram waaye mu feeñ sax ci sa rankoñ bu fekkente ne yàlla baaxee na la nga dana gaaw a génn ak rankoñ waaye mu yokk sa ngëm itam nag innama almuminuuna alladina ida zukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imana wa ala rabbihim yatawakkaluun borom bi nee na ñi gëm dëgg mooy ñi nga xam ne soo tuddee yàlla rek seen xol day tiit waaye soo jàngee alquran seen gëm day yokk seen gëm day yokk te mooy danañ gën a sawar ci lu baax la alquran di dige ak fay waaye danañu gën a ragal danañu gën a dellu gannaaw ci lu ñaaw la alquran dige ay tëkku juróom-benneel ba ci li war ba tey suñu digganteeg alquran kon lii itam ñu xool ba xam nuñ ci demee ndax danañ taasur ci alquran maanaam danañ jeexitalu ci alquran bu ñu déggee ñu jàng ko wala bu tal ci ñun boo ci dul jeexitalu dagg nga alquran foofu te adamu taasur ndax borom bi dafa santaane nañ ko def àq la ju alquran am ci yow muy taasir ci yow an taxsaa qulubuhum li dicrillah wa ma nazala min alxaq juróom-beneen ba nag mooy topp ko nag topp ko nag bu ñu ko waxee wax la ju làmb lépp topp alquran ci pas-pas pas-pas bi nga yor doon bu alquran bu fekkee yor nga beneen pas-pas bu bokkul ak bi alquran jàngale xandiru nga alquran ci sa wàllu aqida topp ko jëf fekkee yaa jëf-jëf yoo xam ne woote naa yi alquran jàngale xandiru nga alquran donte yaa ngi koy jàng nag foo toll bu dégg ba cëg waaye teewul xandiru nga ko mooy li ma la waxoon ne ngay jëflanteeg koo xam ne di ñëw ci moom ci teewul dagg nga ko